benn euh, coow mi coow suufu armeel bi nga xamante ne moo nekk euh, Pikine west mi cimetière Pikine yi ñu gis ni am na ay mouvement yu jugoon tamit ngir euh, teg baaraamu tuuma maire bi nii par exemple moom mooy caxat caxate suuf si foofu ngir tamit ñu bañ a li nga xamante ne moo di cimetière d'abord yow ban rep ban kii ngay jox par rapport ak kàddu yooyu jug jëmale ko ci seen maire. waaw li may njëkk lever équivoque bi mooy nit moom mën a tuumaal Pape Gorgui Ndong ci mbirum suuf. Et parce que pour la simple raison mille 2014 la ñëw ci bopp maire bi 2014 ba léegi aussi euh, nit mësul dégg pam Ndong mu wax ci wàllu suuf donc dafay yàlla aussi ñun ñu leeral population bi ne euh, conseil municipal bii ñu génn nii bi doon bi doon wax ci extension site Wat Gaindé c'est par rapport ak demande bi nga xamante ni peut-être en un premier moment sous-préfet laajoon na ko le conseil municipal Euh, di jiitu woon sax euh, euh, le sous-préfet avait demandé à ce qu'on tienne un conseil municipal extraordinaire parce que par rapport ak li ko code bi may parce que code bi may na sous-préfet mu laaj maire pour ñu def un conseil municipal extraordinaire li taxoon sous-préfet defoon ko tout simplement parce que il a voulu régler un problème boo xamante ni vieux de 15 ans donc li ñuy wax mooy moo jiitu Pape Gorgui Ndong parce que Pape Gorgui Ndong 2014 la ñëw ci bopp maire bi problème bi moo nekkoon problème mu équipe bu bi fa nekkoon muy cosaan daan football occupé benn secteur daan football bon mais fi mu occupé euh, ba gars ba ñuy délibéré ci site bi foofu daf fekk ne foofu ay nit jënd nañ ko ba pare mu nekk ay moomeelu nit cosaan tamit taxawoon fa di entraîner en toute légitimité parce que dafa nekkoon équipe bu football boo xamante ni yàgg na fa donc di entraînement donc coow loolu moo fa nekk depuis quinze ans ñu dem ay procès ay taar ay pneu ci mbedd ak kenn xamul donc muy jotale l'ASC toujours avec ceux qui di que ni ñoom ñoom ñoom moom kër foofu. bon donc ba loolu coow loolu persister le sous-préfet Ndiaye ba mu ñëwee il a convoqué la mairie de Pikine Ouest convoqué aussi Cosaan football club convoqué aussi euh, la coopérative bi nga xam ne am na fa ay biens convoqué le domaine convoqué cadastre convoqué tous les services yi nga xam ñooy tourner autour du domanial pour ñu wut solution ensemble pour au moins coow li mën a dakk donc pour qu'on trouve une solution pérenne et, viable donc donc ci loolu la sàkkoo woon ci maire qu'on fasse un conseil municipal par rapport ak euh, par rapport ak laaj cosaan mais xam nga ni euh, assiette doo jël benn assiette rek dama def benn terrain football donc après li des euh, nit nit mënul nit mënul la wax ni tey lan lañ ci war a def mais li jiitu maire euh, préfet di ko recevoir fekk ni ni jotoon na doléance les femmes de la commune ñi ko doon laaj aussi pour mu teg pour mu defal leen maison de la femme donc ak ndaw yi nga xamante soxla nañu am maison maison la jeunesse mais aussi dans le cadre de la réorganisation du cadre de vie euh, pour Pikine Ouest nit ñi fu leen neex la ñuy lal atelier fu leen neex la ñuy teg seen atelier. waaw loolu moo tax par exemple ñoom seen bëgg-bëgg boobu mën mënta sotti ñu ne dañoo bëgg élargir ba loolu mënta ne lu toll oui maa ngi ñëw bon maa ngi ñëw ci cadre de vie bi cest dire que par rapport ak artisans yi tamit noonu ñoom dañu organiser wu woon ñu defaloon leen ensemble diagnostic local bi nga xamante moo ñuy permettre ñu xam le nombre d'unités d'activité économique yi nga xam dañuy yëngu ci artisanat donc pour ñu defaral leen village artisanal lu jiitu collectif bi c'est par la suite maintenant que collectif bi ci lañ ñëw dolleeku ci loolu dolleeku ci loolu ak doléance bi nga xamante moom mooy ñu yokk armères yi donc tout le monde peut constater aussi que armée yi fees na c'est vrai mais tout le monde aussi peut constater que li des foofu ñuy laaj c'est la seule assiette foncière qui la commune de Pikine Ouest donc par responsabilité envers ceux qui sont présents di dund actuellement et ceux qui vont venir pour le futur donc mënuñu jël la seule assiette foncière qui la commune jagleel lépp ay cimetière voilà là où se trouve le différent parce que ñoom yemuñ sax 7 légalement illégalement maire leen ci loolu mais wax na leen ña fa dëkk amul kenn ci ñoom ku ñëw wan ma titre waxul leen amuñ titre nag mais amul kenn ci ñoom ku ñëw koo xamante daf ma wan titre boo xamante ni titre bu valable la aussi man bind naa Descos ne wax wax waa Descos ne tabax yi ñu tabax foofu noonu il faut les arrêter bon Descos nag maintenant bu ñëwee taf taf arrêt Descos parce que ñoom dañ koy faral di layee am na ay yoo xam dafa am arrêt Descos nit ñu ko doon tabax kon la mooy njëriñu Descos maa ngi koy wax démb sa parfois il faut arrêter ñuy joxañ ba baaraamu tuuma maire yi kese parce que maire bu fekkee ne moom il refuse de donner une autorisation de construire amul kenn ku tabax foofu kër ku la mën génneel benn autorisation de construire boo xam mairie bu moo ko jox donc libre à la DSCOS bu fekkee loolu c'est constaté mu daanal kër yi mais bu fekkee ñoom dañu bëgg ñëw woo maire ci 7 hectares yi libre ak cinq hectares yi am ay kër ñu màbb kër yi def ko ay bàmmeel loolu ku la ci woowoon yow sax doo ci dem parce que le maire et censé trouver des solutions par rapport à ses mais pas mu cinq cent âmes yóbbu leen ci biti ñoom ils n'ont pas posé la question au maire bu leen génnee fooy nu yóbbu voilà la question euh, voilà donc ñun ñun suñ position leer na on a délibéré. tamit ngeen ngeen créé beneen espace euh, au niveau de Pikine ngir tamit jox ko armée li tamit amu leen. waaw xam nga xam nga président de la République ci mbaaxam ba mu déggee ñuy tawat président de la République dafa wax waa Mbaaw ne leen pour ñu joxe 10 hectares pour des cimetières mixtes Mbaaw a te mbaaw bu nekkee ci wàllu yaatuwaay moo Pikine Ouest maintenant mais li ma la wax Pikine Ouest li ñuy laaj noonu c'est la seule assiette foncière bi fa des maanaam mooy tey bu ñu ko defee lépp armère suba génération yi di ñëwi ji bu fekkee ni am nañ infrastructure yu ñu bëgg def ci turu commune bi commune mu war a nekk si suñu commune ñun Pikine Ouest fan lañ koy def on perd mu dem beneen commune yeneen communes yooyu ñoo ngemb ay nit ñu fa dëkk ñu ñëw pour jël suuf bi nga xam moom rek Pikine Ouest dese mais yow bu nekkee maire nga nangu naa yokk armeel yi danaa teg commission boo xam ne dama koy ubbi yéen ngeen nekk ci en collectif ndaw yi nekk ci en tant que conseil local jigéen ñi nekk ci en tant que réseau euh, nu ñu koy sax artisans yi nekk ci en tant que groupement yéen ñëpp ak maire bi ñu yor commission domaniale ak la ak le représentant d' ñun ñëpp ñu toog ñu xalaatandoo kenn ku nekk lan lañ ñuy war a mën a jox ci espace boo xamante ni di mën a def say activité c' est simple. moo tax ñoom par exemple bu ñu génnee di ñaxtu di manifester ci buntu bi ay takk der ñëw fa maanaam fexe disperser c'est ça c'est une question qu'il va falloir poser au sous-préfet parce que xam nga code bi euh, dégg naa leen ñu wax seen biir kii ne code bi da leen may dans l'article 148 pour ñoom ñu ñu ñu fekkee conseil municipal ça c'est vrai mais code boobu leen may loolu moo sant préfet ne ko bu fekkee ni les gens menacent dafa am manifestation wala moom menace le préfet prend ses responsabilités c'est ce que le préfet a fait le sous-préfet ayant entendu des audios ñu jugee seen groupe whatsapp ñoom ñuy wax bu subaa nañ dem assiéger mairie bi Pape Gorgui Ndong dafa bëgg def conseil municipal pour pour jaay terrain cosaan c'est ce qu'ils ont dit à la population sachant bien que ni ñoom terrain bi cosaan nekk bañ koy bañ ba fa cosaan di nekk avant Pape Gorgui Ndong la je me rappelle en 2008 Pape Gorgui Ndong muy implanter le parti dans dans dans département dafa daan ñëw ci terrain bi foofu fekk fa cosaan di waxtaan ak nit yi ça je me le rappelle cosaan xam nañ ni ba ba ba ñuy ba ñuy délibéré foofu di jaay suuf si Pape nekk nekkul sax maire il n'était même pas encore DG l'APR n'était même pas encore au pouvoir donc maintenant dans une volonté délibérée ay politiciens nekk seen ginnaaw parce que li xew barki démboo fet c'est de la politique. mooy marché bu ñu def ce n'est que de la politique la preuve ñi nga xam ne yóbbaale woon nañ ci loolu yóbbaale woon nañ leen ci loolu muy ay ndaw yoo xam ne peut-être APR lañ bokk ñu yóbbaale leen ci bokkuñu camp ak peut-être ñun. xam nga APR nit ki mën na toog ne man ànduma ak Pape Ndong ci politique il est libre maintenant ñooñu ñoo ànd ak ñi ñu àndal donc wër yàq der pourquoi parce que li ñu bëgg def mooy nit ñi désavouer le maire Pape Gorgui Ndong fexe ba jaxase le maire et ses administrés ils sont partis un peu partout dem nañ dem nañ ñoom seen communiqué collective bi lii naa ci ne am na ay groupe ay ay ñu leen fekk si lu mel ni waa Faysa waa Cité Faysal Parcelles Assainies lu mel ni waa Guédiawaye lu mel ni waa waa waa waa waa Mbaaw lu mel ni waa et le département qui sorti pour réclamer à Pikine Ouest la seule assiette foncière bi fa des jox leen ko département bi ñu ko armeel. est-ce euh, maire bi def ngeen ay démarches par exemple pour euh, coow li mën a jeex ngir waxtaan. bu ko defee mais waxtaan bi moo jiitu le collectif a été reçu par le maire le 17 octobre il les a reçus il les a reçus wax leen ni nangu naa seen requête le 2 novembre le co-coordonnateur Xaarim Mbeng bind la maire Pape Gorgui Ndong au nom du collectif sama suuf ma yokk sama armeel pour mu def plaidoyer sur sur l' extension des cimetières sur tous les douze hectares sept cent le a répondu que ni ba ma leen ba ma leen recevoir waxoon naa dinaa jël seen requête jébbal ko conseil municipal def nañ ko conseil municipal délibéré na nangu nañ dañ yokk armeel mais defuñu ko si douze douze ectare et voilà parce que douze hectares yi mooy da màbb kër yi cinq hectares dolli ko ci sept hectares yi muy douze hectares sept cent. ils veulent faire ça au maire mais wax dëgg yàlla moment bi ñu toll nii di génne ay nit seen kër yi au nom de quoi après foo leen def mën na am beneen solution bu gën boobu ensemble avec l'État du Sénégal on peut avoir des solution maintenant la solution la seule solution mooy que Pikine Ouest puisse avoir des infrastructures sociales dignes de son nom parce que nous sommes commune ñoom ba ñuy ñoo seen avant ñuy def seen marche bi dañoo dañoo réunion ñoom ci maison de la femme bu Pikine en quoi la femme pour ñëw réclamer suufu Pikine Ouest ne maison la femme du fa am en quoi maintenant la femme de Pikine Est est plus noble wala plus légitime ci mu am maison la femme que la femme de Pikine Ouest en jeune bi nekk Pikine Ouest Pikine Nord jara am fa espace bu doy bu bëri ñu bàyyil ko ko fa moom jara pour muy tabax lu ko neex foofu ñu ñëw laaj ñu ñun suñu espace nag ñu ñun amu leen ambition on les ambitions de Pikine Ouest à des seuls cimetières que décideur duñ ko et ça c'est un appel que nous lançons au président de la République bu mu nangu frappe di yàq deru maire yi mu koy déglu parce que les maires ñoom peut-être yor nañ suuf c'est vrai mais décision bi du ñoom ñoo koy jël la décision toujours et dañ koy delluwaat toujours l'administration l'administration maintenant libre ci moom mu nangu wala mu ñàkk nangu l'essentiel ñun suñ position mooy daañu yokk armères yi mais jamais sur douze hectares sept cent waaw. jërëjëf monsieur Ba Diakhaté